te ànd ak tal dara bañ ci dara bañ cee manqué kenn bañ la ko àggaleel sant baax na di la siyaare nag jàmbaar ji baax ji si bàyyi ko bokki dem mu suñu bis fa alxuraan ne mi ngi la koy siyaare di ñaan nag dolli ndimbalam ak yërmaane fa jëm boole ko boole ko maama ya dañu boo nag jifres nga nga yéenam ci ñoom saxal ak taalibe bi ak jub noo ngi yeesal suñu pas pas yeesal suñu suñu suñu suñu yite yeesal suñu njëbal te fas yéene rek nekk sa gannaaw faw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 mu ki ciy fas yéene gën a feddali suñu laxasaay. mu ne mu ngi ciy gën a fe fas yéene feddali ak laxasaayam. fas yéene ko ànd ak yéen rek. fas yéene ko ànd ak yéen rek. incha allah incha allah. jërë ngeen jëf jërë jëf. gis nañ lettre bi mu ne gis nañ bataaxal bi bu baax a baax. dana mënatul a yéeme yéem dañ leen a mënatul a yee.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 mu ne mu ngeen demee na ngeen ko ziyaareel sëriñ bi bu baax a baax. te wan mu ne te wan ko cant googee. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. jërëjëf waaw. mbokk bi dañuy nuyu abokk julli yëpp ci dégg la suñu sax ji mu faal kàddu la ñuy waxee dafa yebal si yi bii Aliou yoo xam ne nii Aliou yoo xam ne si dafa dajale waaye indi ko suñu Tuubaa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 waaye bokkul ak liggéey bi nag loolu moo tax sëñ bi sëñ bi yëpp loolu nañ ko teewal si yéen jox na ko suñu doyen kon kon sant na baax gërëm nañu sëñ bi ndax ginnaaw indi nañu ko bu nangul ko sant ko ko indi woon tey jii mu téye leen ko kon dañu jaaxal waaye indi nañu ko mu téye ko sant nañu baax a baax si affaire bi mu jox suñu doyen addiyee mu nangu ko nangu na addiyee yëpp mu di yëpp waaye bu ko gàntuwoon tey jii kon fu ñu jëm Moussa Fall ak mboolem njabootu suñ Mbàkke Fall gi itam nag ndax gis nañ suñ Assane Fa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 jox Serigne Cheikh jëmm ànd moom na Serigne Bassirou Fall Alxuraan àndoon ak Serigne Cheikh jëmm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall kaddu yooyu bi ak pëstéef bi nga xam ne wane nañ ko am yi nga xam ne njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall indi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké eh, tey jii ci dimanche ji eh, ñu ngi ñaan sunu borom eh, mu yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha yàggal fi mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp jërë ngeen jëf mbokk yi xam ngeen ne délégation bi ngeen di gis mooy délégation xalif